سيدنا وداي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا وداي ومنزل الشفاء والدواء tey li war sama teewaay bi mooy dama ñëw ci bis bi nga xamante ni Serigne Mountakha moo ko woo bépp murit ñu jógee ba fa nga xam ne mooy Tëngéej ñëw teewee ko parce que bëggoon na nga dem Touba mais comme jot gi xam nga affaire kii dafa xaw a bette loolu moo tax ñu ne rek nañ jëm a def li ñu doon liggéey lépp ñu bàyyi ko ñëw kii ci Masaalik daal di màggal bis bi nga xamante ne bii bis am solo ci ñun taalibe murid yi ndax mu Mountakha lu mu woote rek euh, bu ko woote woon ba siin sax dañuy dem fekk fa incha allah parce que ñun murid lañ tey ndigal rek la ñuy la ñuy wéyee bu sëñ bu saay bu sëñ bu wootee dañuy dem fekk ko fa. ñoo leen jàng fii li mën ci ay xasida tamit li ñuy jotoon a yar ci xéwal yi tamit ñu bàyyi ko fi lépp rek ngir ànd ak sëñ bi bis bi màggale ko ko ko itam di sant murid yëpp ci sant bu wér rek sant Ahmadou Khadim bu wér rek ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax di sant sëñ Moustapha bu baax suñu xalifa général ñoo ko sant bu baax a baax di ko ñaan bu yàgg fi te wér ñun ay rek lañ gëm sëñ Tuubaa rek mooy tax a jóg sëñ woo woote rek ñu jóg. ndax tey jii journée xasida sëñ Touba la muy lu màgg ci ñun di lu fort ci ñun ci loo xam ne nii képp kuy murid rek war na laa tax a jóg sëñ Mountakha wooteem képp kuy murid war na laa tax a jóg asamaan ak sëñ Touba def xasaayid mi nga xam ne xasaayid yi moo moo aar Sénégal mën naa wax moo aar Sénégal sëñ Touba mooy Sénégal yal nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla fayal Ahmadou Khadim sëñ Touba njaago yeeg juif yeeg ñëpp xam nañ ne sëñ Touba rek koy sëñ Touba nga nangu xam nga ko nga ñàkk nangu it xam nga ko buñu amé jamm Sénégal grâce à Serigne Touba Mbacké barki borom Touba def ci mé nga tek ci sa loxo manam yaa ngi may dégg dégg dégg day dem nga ñak tegit tegit day dem waaw Serigne Touba tol foofu ku ko jàppale mu dem ku ko jàppale lu day dem ku gis masaliku ni mu mel ak Touba njaareem ak fepp fo dem fi ci aduna nga xamné Serigne Touba kenn la soxla barki borom Touba ku ko yëg ak ku ko yëgul nag yaa ngi koy màggal feebar gi dina fi juggé dëkk bi dina neex xewal gi dina gëna a baawan Serigne Mountakha neex ko déglu parce que allah lay waxé billahi wala samay morom ñu ci bari bëgg ñu ko déglu parce que allah waxee waxee mom ci imini mën ray parce que leppam mom te mbégte la lay wax mbégte ba bir aljana te woote nak de mbégte mbégte ba bir aljana kenn amul fayam soxna si foo ko fekk ma ngay ré yeen ñëpp jàmm barki borom touba ta daf fiy yàgg man xarim jëwrin mal ko wax demagul da fi yag yàgg te lay liggéey pareegu fi li seigne salih def da koy def at bobu non da ko fi tok man xarim mal wax lool di siaré mboolem ku fi tew ñaan mboolem liñ fi def ci ay lanwaar xassay di ak alcorane jéeg lépp yàlla na ko Sëriñ Tuubaa def ay tawfiq mu doon fan bu gudd ci Seex Mamadu Muntaxa comme ni ko mbokk mi waxee yàlla fi yàgg te wér ñoo ngi ñaan suñu borom moo mayoon yonent yàlla nooyin mu dund junne at te mënaan na ko ba léegi yàlla na ko may Seex Mamadu Muntaxa barki Seexul Xadim ñoo ngi koy ñaan ñoo ngi koy dagaan ci bis bi nga xam ne lépp ay lanwaar la ak ay lasraas lasraar depuis plus de trois semaines euh, ba mu joxe ndigal yi boobu ba léegi euh, amuñu jot tey lañ ko xaar ah, door di am te gis nga tey tam jot amut xas xasaay jàngee jub alxuraan jàngee eh, eh, berneel yi bari na allah kay. ah ma ne tamit berneel yi bari na. berne yaa ngi ne eh, lu ne lu ne fu ne donc sëñ Touba amul morom sëñ Touba amul morom yal ko yàlla moo waral suñu teewaay waaw ndax koo gis rek bëgg na sëñ bi te sëñ bi bëgg ko mooy lépp ñun lu am te amuñu sëñ doy sëkk. sëñ Mountakha. waaw sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér li mu yéene liggéey maam maam ci lu kawe njortam. mbégte rek comme xalifa général moo ne mbégteem murid kay nañ ko dundee mbégteem rek moom suñu xool daa seetlu sax bu mënuñoo wax ndax li sëñ Touba moo ko ñaanoon yàlla si Matlabul Sifaay mais dañuy ñaan murid yi soppante bëggante wóolante te yàlla tax té ñun instant ñu loolu rek lañ fi gis né ñaan yalla li li na avancer ba ci kanam ak kanam ñu koy fête ay at yu bëri ñu fété ko ay yu bëree bëri bëri damay contane quoi bañ bañ bañ suñ tuba bolé si boppam ndax ndax bu ko neexon bay ñu fan neewon man ci loolu laay faire chaque jour loolu laay sante yalla chaque jour mais sama papa côté papa dañu ñu am côté côté am côté chrétien am côté julit mais limay ñaan suñ borom suñ tuba may mako dam mi somo commencé mo la bëgg agalé ndax sama famille papa ba fa démé dama dama bëgg ñeneen ñu doon tuup ñew doon julit doon ay bokk si l'islam bokk ci bokk si waa Sëriñ parce que ma demee foofa dama waxtaan ak ñom tek ay xasida ñoom xamuñu lan mais duñ koy bëgg seen xol mais amna ko xamanteni ñong koy woyé Dieudonné ab chrétien la quoi Dieudonné tuddu sama mag la papa sama papa ñoo bokk nday ak baye mom moom daani bu gisee bu gisee lu ko doy fi bu ñëwee bu ñëwee si Sénégal bu ñëwee lu ko gisee bu ñëwee lu gis bu ñëwee lu bu bu bu gisee loolu lu ko doy day day tuub la la ah. La